mbokk internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun daleen ak jàmm ci li gën a ci réew mi dañu koy door rek moom la gouvernement bi daal di jër ngir amal ci seen ay communication bu ñu sukkandikoo ci benn note bi nga xam ni fësal nañu ñaari ayu bés bu nekk rek ñi nga xam ni ñoom ñoo seq gouvernement bi dinañu jàkkaarlu ak taskatu xibaar yi ngir rek addu ci xew-xewu réew mi ak tolluwaayam loolee nag gouvernement face à la presse la ñu ko daal di tuddee séance bu njëkk bi nag samedi bii di ñëw rek la ñu koy amal foofee ca building administratif Mamadou Dia toll si juróom ñoom ñoo koy seq daal di toog ci table ngir tontu si laaj yi nga xam ni daa jëm rek ci lu ñeel seen ku liggéey jëwriñ yooyu nag dina ca bokk Antoine Félix Abdoulaye Diome di di ki nga xam ni moom la ñu dénk mbay meeg équipement rural Serigne Mbaye Thiam yor wàllu ko ndox meeg assainissement li xam ne moom moo yor rek napp geek économie maritime Aminata Assome Diatta di jëwriñu commerce ak petites et moyennes entreprises Dame Diop itam di liste de l'emploi ak formation professionnelle ki nga xam ne nag moo di Moïse Sarr di secrétaire d'État bi nga xam ne moom mooy saytu doomu Sénégal yi ca bitim réew ñu woyal ba tey ak politique bi Aly Ngouille Ndiaye Ba ak Oumar Youm dal lañu rek seen kóllëre ak njiitu réew mi Macky Sall loolee nag ñoo ngi ko def gannaaw bi leen rek njiitu réew mi génnewee ci gouvernement bi amadu Ba xamal na Macky Sall ni ko xal na ko rek lu tolloo ko ñetti at yoo xam ni jëwrinam la woon te masul bokk ci APR tax rek mu feddali kóllëreem ci moom te xam ni rek day woy di ko liggéeyal te it nag pare na ngir bépp liggéey boo xam ni rek moom Macky Sall soxlawee na ko ko ko Aly Ngouille Ndiaye moom it xam le na ni APR lay des ndax àndam ak Macky Sall lu yàgg la te it nag njariñ rek la ci ay proposition bu conseil municipal bu maire Thiadiaye moom nag mooy mairie dëkk boobu ñamu seqal mairie bi yépp nag pare nañu rek ngir gunge Macky ba atub gannaaw Idrissa Seck Malick Gakou moom it fekki si na Macky ndax ci réunion bi nga xam ne moom lañ jiitu réew mi doon amal ak waa APR dafa xam ni Malick dina bokk ci gouvernement gouvernement bi waaye xamlewul lekk ba tey ji ban poste rek la fay daal di yor waaye nag yenn si taskatu di fal a a néewal doole ñi nga xam ni ñoom ñoo fare ci kujje gi marché Ocass bu Touba jamono ji nekk na rek foo xam ni day dajale ay politiciens gannaaw lakk-lakk yu metti nag ya fa amoon te mu juróon fa ay yàqu-yàqu yu méttee métti lu yées nag gannaaw bi fa Idrissa Seck demee ak délégation wam njiital parti boo ko gis-gis dina fa dem yem rek tey ci altine bi moom Pape Diop ak délégation wam ñoo ngi leen di xaar foofee ca marché Ocass tey altine bu ci boobu rek li nga xam ni moo di 17h marché Ocass boobu sax la ñuy desandi ndax maire yi bu Touba li mu bëgg rek mooy ñu tegaat si yoonu marché boobu nga xam ni nag li fa ëpp rek lakk-lakk yàq na ko moom Abdoulahat Ka xamle na ni marché bi rek dañu ko war a suqali euh, tabaxaat ko ba mu mucc ayib mu teg ca ni amul benn centre commercial boo xam ni rek moo nga fa te dëppoo ngaak li nga xam ni moom mooy digle wu waa mairie lu xew nag ñu daal di koy teg ci seen ndodd ñoom waa mairie bi te mairie bi lépp lu mu man rek moo ngi koy def ngir matal liggéeyam ñu àddu si mbëkk mi jëwriñ bi ñu dénk wàllu ko bitim réew foofee ca Espagne xam le na ni doomu Sénégal ya fay dugg te jaarle wuñu ko ci yoon dina leen delloo si fii ci réew mi kon képp koo xam ni amul kayit yu jaar yoon doo dëkk rek ci seen réew boobu bu ñu sukkandikoo ci Arantxa González Laya dëkkam di Espagne diir bu gàtt rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dugg te ko ci yoonu géej gi bari na na nag képp koo xam ni yaa nga fa te jaar si géej gi dinañ la delloo si te bu fekkee ne nag mën ngaa delloo ji sa bopp nga def ko ndax sinon rek ñoom it dinañ la delloo si alxayri jib na Daba Ndiaye nekk actrice si série VIP sañse am na borom kër moom nag léegi euh, madame Seck la ñu koy woowee mu xam leen ni rek fanweeri millions yi nga xam ni moom la ñu ne rek moom la ñu ko jox warugal loolee nag du ci wax dara lu dul sant yàlla te it nag kontaan ci bu baax a baax delloo si njukkal itam ñi nga xam ni ñoo di ay waajuram si noonu nag mu wone mbé bu rëy a rëy boo xam ni rek am na ko ci bësam boobu xanaa ñu ñaanal ko rek mbëgte moomu rek daal di sax ba faaw rédaction bu Sénégal 5 ak bu 5 TV itam ñoo ngi koy wax rek heure ménage ci la ñuy yem ak yéen mbokk internet yi ma jox leen dig dajee ëllëg incha allah ay laata boobu woye leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee bés suñu cloche de notification bi ndax ngeen mën a jot ñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf